nit yoon te fekk booba dañoo luubal alalu askan man li ci président Bassirou Diomaye wax moom laa jàpp ñu ngi ci liggéey ma xam nag aussi dossier yooyu da nga war a jël garantie yépp pour que li waykat bi boo leen visé doo leen moy comme loolu mooy li ci bëggoon a wax ak commission bi ñu wolof la français laa ko waxe woon li nga xam ne moom lañ jagleel victime yi ah waaw boobu moom luñ ci manit muy personnellement nañ ko ci def ci jàppale ci xalaat parce que nag bari na ñoo xam ne ñii euh, ba tey ñu ngi am traumatisme ñi seen liggéey yàqu na rawatina nag ñi nga xam ne ñoom dañ cee fàtte

mandat de député qu'ils m'ont illégalement arraché. C'est eux qui ont voté la loi d'amnistie qu'il faut révoquer, Assemblée boobu am na lu mu yow lépp luy loi boo xam ne moo lor Sénégalais yi ba ci loi d'amnistie ñii pour ñu effacer ñi nga xam ne ñoo santaane ak rey xale yi. commission boobu assemblée nationale boobu dee leen ko fàttaliku moo fi voté report report boobu moo indi ñeenti xale yu ci faat. kon am nañ ci responsabilité ñoom ak Macky Sall ñoom war am nañ lu ñu wax ñoom assemblée ko dañ ko war a dissoudre ñoom nee nañu dañuy précipité gaaw seet naka la ñuy def ba voilà président ba du mën a dissoudre kooku bañ yegg si bañ yegg si xam nañ luy ñoom référendum référendum a ngi le 31 juillet en tout cas sama conseil ba may joxe mooy nañ dissoudre assemblée bi jàll ci ay élection yu bees loolu la wax ay député yu bees député yi jël leen leen benn par benn ka doon animé conférence de presse bi dem leen seet bureau de wotam <laughs> la fa jot a xew ay leen a dóor ñoom ñëpp dóor dóor yu méttee métti sax métti sax kon loolu mooy li nga xam ne moo am ñuy woo sénégalais yi aussi bu ñu wootee élection yu bees ñu jox ñu une large majorité large majorité ñu mën a réformer réew mi ñu mën a gën a tegaat réew mi ci yoon ñu mën a jëflante nag aussi ak ñi yóbbu suñu xaalis dañ naan luubal voilà waaw ca put ba ngay bës kay mu mën a génn salaamaaleykum c'est Daouda Wall yi Feeling madame la présidente bi nga xam ne bii loo jàngatee ci président Ousseynou Faye bu waa CEDEAO daal di désigné comme facilitateur entre les pays de la CEDEAO ak ak l'AES beneen question bi mooy danaa liggéey liggéey bu solo ci élection yi nga xam ne bi ci liggéey mais la ñuy euh, je pense que cela consacre le leadership que notre président de la République a clairement affiché lors de ses différentes visites dans les pays membres de la CEDEAO. Euh, je considère qu'en un laps de temps très court, euh, tout le monde a pu saluer sa stature, sa sérénité et sa sagesse. Parce que jeune âge peut parfaitement rimer avec sagesse et il l'a démontré. La diplomatie, c'est également une analyse fine des intérêts de notre pays la manière dont on doit entrer en interaction avec les autres pour la préservation de nos intérêts et la préservation des intérêts de la sous-région. Il a choisi, pour l'accompagner dans cette tâche, un homme d'une grande qualité, très respecté, le professeur Abdoulaye Bachili, qui a une grande expertise, pas seulement d'ailleurs sur le dossier de la CDAO, mais sur d'autres dossiers. Et c'est une bonne chose. Je considère que nous sommes le seul et même peuple de l'Afrique je rêve en tout cas du jour où cette réunification se fera. Cette scission n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est également l'extrémisme de certains chefs d'État civils qui nous ont entraînés dans cette, dans cette voie. Chacun a son contexte. Et dans des pays qui ouvrent la porte aux militaires, c'est des civils. On vous dit de faire deux mandats, vous voulez en faire un troisième, vous changez la constitution, vous venez, vous vous installez avec votre famille qui accapare tous les postes. Mais à un moment, c'est le trop plein et l'armée s'empare du pouvoir. C'est ce qui s'est passé dans ce pays-là. Donc il faut faire prévaloir un esprit de concertation. Et j'en appelle aussi à euh, tous ces chefs d'État, militaires, au peuple frère du Mali. Le Sénégal et le Mali, c'est le même peuple. Le Sénégal et le Burkina Faso, le Sénégal et le Niger, c'est le peuple de l'Afrique de l'Ouest. la sécurité, leur sécurité, c'est également notre sécurité et vice-versa. En tout cas, j'espère que la conversation et le dialogue continuera euh, dans la sérénité et, et vraiment dans le, le, dépassement. En tout cas, c'est mon c'est ma volonté. Et je souhaiterais également que les femmes des différents pays s'impliquent dans une médiation souterraine C'est important, pas seulement les officiels, mais la médiation souterraine, pour que qu'ensemble, vraiment, nous constituions un ensemble fort. Moi, comme panafricaine, je crois à l'unité de l'Afrique. Je crois à l'unité de la sous-région, l'unité organique. Nous devons aller, moi je le considère, vers une monnaie unique à travers la CDAO. Et tous ces trois pays doivent faire partie. Nous devons matérialiser le projet de l'ECO, pour en finir avec le franc CFA. Ça, c'est le projet qui existe, qui est en... L'écho aurait dû être mise en œuvre depuis deux ans. C'est ce qu'on oublie de dire. Donc, euh, je considère que c'est un excellent choix qui a été fait de mandater notre président, le président de euh, pour que justement le lien soit maintenu et qu'on revienne euh, à des discussions. Et comme je l'ai dit, je, salue vraiment aussi le choix, le choix du, du, du professeur euh, euh, du professeur Bachili. Je considère que nous devons tous être très fiers justement de ce choix-là, euh, du choix de notre président. Et moi, ce que je reçois comme euh, feedback, euh, c'est vraiment, euh, vraiment un retour de, de respect et et de considération. Et nous prions et nous demandons aussi à nos chefs religieux de prier pour la réussite euh, de notre, de notre régime, de notre président de la République, de notre Premier ministre, de l'ensemble euh, des membres du gouvernement. Mais comme je l'ai dit, avec notre appui, nous les citoyens, car nous devons jouer un rôle fondamental pour que les actions et les initiatives qui sont prises par nos dirigeants soient accompagnées par un support populaire très fort. Je vous remercie de votre attention. Ceci étant dit, nous remercions toute la presse qui a bien voulu faire le déplacement ici au niveau de notre siège pour prendre part à la conférence de presse du leader du mouvement pour l'intégrité, le mérite et l'indépendance du 2024. Merci et bon retour à tous. oui mais nous avons levé waaw ma bàyyi ko mu dégg waaw waaw bàyyi ko mu ana ana micro bi. waaw ma wuyu ko rek ma wuyu ko rek waaw ma wuyu ko rek. andi andi waaw dégg waaw dégg naa la ça fonctionne pas. déglu leen déglu leen tuuti rek déglu leen waaye na wax rek. ah vous demandez pourquoi je ne suis pas nommé c'est ça votre question. waaw ah, mais c'est pas ici que je vais on ne s'engage pas pour ce qu'on en tout cas, moi, c'est pas ce qui motive mon combat. c'est d'abord la justesse de ce combat-là. C'était de lutter contre le troisième mandat, c'était de lutter contre le report, c'est d'avoir un changement dans ce pays. Et nous avons remporté de belle manière cette victoire. Nous allons continuer à soutenir le président de la République, son premier ministre, ses ministres, pour que le Sénégal aille de l'avant na Sénégal dox looloo ci am solo ah léegi nag la nga xam ne lañ ci contribuer kooku euh, en dernière instance ci loxo yàlla la nekk ñu ngi leen di gërëm